faal faala ngay demati dooma ngay dem dooma ngay dem dooma ngay dem nee leen doom fa yàlla xaarew doom fa yàlla moom doom fa yàlla la ne doom jarul ngeen koy laaj ay doom yaay kanam doom foo jógee doom kañ nga juddu doom kañ nga dugg Europe doom léegi laaj la ne doom doom fa yàlla ñun ñàkkee xam maam seeraayam faal ñàkk xam baay faal ñàkk a mën a teg bët yàlla mu leer leen yàlla la noonu nag ñàkkee xam doom fa yàlla ci luy dem la nekk nag jëm fa yàlla waaw waaw maam Bamba yàllay jaam yi Mamadu mooy borom jaam yi ki nga xam ne nag danoo xam ne mooy yàlla ñu koy dund yàlla di ci am yàlla di ci yëg yàlla yàlla dañu ci dañu ci ci gën a saf kooku moo fi ne muy maam Sidi Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina yàllaahu yàllaahu yàllaahu góor yàlla yi nanu dëkk jóg ñoqale yi wax de waxuñu ku dul maam Cheikh Ibrahima Fall lamp Baabul Muridiina waaw doom fa yàllaa ngi noonu nag waaw di ñoqali nasaraan saa ngi nii toog ñoom ñëpp di xool naan kii lu may wax leen ki dana wax ki tax ngeen ni xalaat naan kii lu muy wax muy yàlla jaam ñi waaw yàllaaw yàllaaw yàllaaw nan wax day muy yàlla ji muy maam Seex Ibra Faal muy Baay Faalisme kooku dafa dee Baay Faalisme moo gën a tàngale ñi Baay Faalisme moo gën a ñàng lépp moo gën a kawe moo Baay Faal Baay Faal Baay Faal Baay Faal tiit ñëpp ku nangoo ku nangul nag doon nee ni Baay Faal te jël seen ñëpp bàyyi ko maam tey liggéeyal maam Bamba ak maam Seex Ibra Faal ñi nga xamante ne nii danoo am maanaam ay sangi mbàkke mbàkke seen i wasila di ay mbàkke mbàkke taxawal leen maam Seex Ibra Faal toogay leen maam Seex Ibra Faal doxee leen maam Seex Ibra Faal ngeen xam ko ngeen ñàkk ko xam nag moom ngeen di doxee sukk beeg raam beeg siyaar beeg dox ngëbala beeg liggéey beeg lépp mooma waaw kon liñ kenn naan maam Sidi Ibrahima Fall maam li fi nekk Bamba ji moom la yoonu murit moom la lépp mooma moo waral lépp moo tax waxuñu ko woon ni ko lii de lii de yow la dañu ko lépp yow wax lii lépp yow a lépp mooma